Euh, tey jii nag ñu taxaw fii ngir leeral situation yi nga xam ne euh, fi la toll nii ci liggéey bi nga xam ne moom lañoo def mu jëm ci wàllum recasement ndax kenn ko ne xam ne ndox mi ba mu wàccee am na dégâts yu bare yoo xam ne ni bàyyi na ko fi te ba léegi nii ñun ñu ngi ciy liggéey ndax euh, nii may wax ak yow nii daanaka recasé nañ lu tolloog 29 famille ci kër yi nga xam ne abal nañu ko. Eh, ci biir recasement yooyu nag buñ ko xaymaa ci kër yi nga xam ne moom lañ leen def dafa fasanti ko ndax am na ci kër xam ne mën naa jël lu tolloog ñaari famille am kër ne ni benn famille la jël am yoo xam ne ñetti famille la jël kër yooyu buñ ko xaymaa jamono ji war naa toll ci 20 maisons xam ne ni ni recasé nañ ci ay famille yoo ne ni eh, ci biir dëkk bi lañ dëkk dëkk ci quartier yoo xam ne ni yu fasanti la loolu mooy tolluwaay bi nga xam ne jamono ji may wax a yéen def nañ ko eh, nit ñi nga xam ne ñoo fi nekk nag ci kër yooyu boo ko xaymaa ak kër wàllu gi moom tim daanaka ni may waxee rekaas nañu cent 640 nit ñoo xam ne ni jamono ji may waxee yéen ñi ngi ci barab yi nga xam ne moom laa lim muy kër wàllu ak kër yi nga xam ne moom moo nekk Touba ñu abal ñu ko ñu jël nit ñi nga xam ne am nañ jafe-jafe ci ndox mi ñu yóbbu leen fa ñu ci bari seen dund yàqu na ndaxam ne ku dundam yàqu boo ko déplacé yóbbu ko feneen te fa nga ko yóbbu xamu fa kenn soo ko jàppalewul rek daanaka dama fa mel ne da nga koo yokk problème famille bu ne rek lépp lu war ci ñoom commission sociale ñu ngi koy def bu jëmee ci wàllum ñu ngi koy def bu jëmee ci wàllum dund ñu ngi koy def bu jëmee ci wàllum courant ñu ngi koy def soxla sépp soo xam ne la am na ko yëkkati nañ ko teg ko ci seen disposition ba fañ nekkoon moom fàtte nañ ko jamono ji may wax yi fañ nekk moom daanaka mën ko tuddee àjjana ndax am na ci kër yoo xam ne boo fa demee sax booy dugg ci biir kër gi daanaka mën naa ne kilim gi moo ba nga xamee ne ñoom dañoo doon wax ne fii ñu ñuy wàcc nii de wax dëgg fa yàllaam ñoo ngi sant sëñ Muntaxa bu baax a baax ndax bu ñu taxawoon ne dina gën a metti ñi ngi wéyal nag di recevoir ñi nga xam ne ñi ngi bëgg ñu recasser leen parce que jafe-jafe léegi mi ngi fi jógee fi lu ci bari nag naam wàññeeku na waaye ba léegi nit ñaa ngi demandé pour ñu jëlee leen fañ nekk yóbbuwaat leen ci yeneen kër yi kon loolu ci laay profité def benn appel oo ñi nga xam ne ñoo dëkkee dëkk bi te sëñ Tuubaa defal leen tawféex ñu tabax seen i kër tëj ko te kenn nekku fa njaboot sëñ Tuubaa gaa ngi nii ci ndox mi nañ leen jëlee foofa ñu abal ñu kër yooyu ñu jël leen fa mën leen faa loose ñu liggéeyal Serigne Touba ndax bu ko sëñ Mountakha mënoon moo koy defal ñëpp waaye nagam ñun ñëpp taalibé sëñ Mountakha te nga xam ne moom la sëñ Mountakha def am nañ ni naam bari na wala mu néew lu mën a doon rek mu nekk bërëb yoo xam nit ñi mën nañ faa dem te ñu tëj ko nañ ko ubbi jox ko taalibé sëñ Touba ñu dugal leen fa ba jafe-jafe yi mën a jeex ñu delloowaat leen seen i kër kenn ko na laal fañ la déplacé bàyyi ko xel fiñ la indi tim nga bàyyi ko xel bu baax a baax ndax kër yi ci boppam yi ñu yóbbu boo fa demee yu ci baree yu mucc ayib la nga xam ne kër gi borom màggalu Touba moo tax mu defar ko boo demee lépp nga fay fekk da nga fay fekk matelas fekk fa tele fekk fa am na yoo xam sax da nga fay fekk clim li foo war lépp borom kër gi def na ko yow nga xam ne da ngaa amoon jafe-jafe soo daan yeewu say tànk ci ndox nga ko daan teg ñu yëkkati la jëlee ci jafe-jafe boobu yóbbu la foo xam ne boo yeewoo mën naa ko wa rasuuli na nga fexe ba sàmm alal jooju jox xam ne laal ñu jaajëfal équipe bi nga xam ne nag moom la àndal ndax boobaak léegi ñu ci taxaw taxawaay boo xam ne waaye mucc ay bi la ndax liggéey bi ñu liggéey yombut ndax fu ne la nit di wootee ngir ñu jëlee ko foofu yóbbuwaat ko ci benn bërëb loolu nag day laaj équipe yoo xam ne yu xam terrain bi la yu bëgg liggéey bi xam la ñuy liggéey moo tax résultat bi nga xam ne ñi ngi ci nekk ci yoon bi nga xam ne moom la ñuy xaar ñu fas yéene ko amee comme ni ñu ko bëggee wa jannatan li saalikin muridi wa jannatan